alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ya rab alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala sayidi albashar sayidana wa maulana wa nabiyana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa man wala mbokki daara ji assalaamu aleykum delsi nañu tey ci àllarba ji ci seen émission Nooru Zaman di 29 novembre 2023 ci numéro 315 di fukki fan ak juróom jamaadal ula di rakkaat ci gàmmu 1445 ci gàddaay gi tey nag ñu indi mawdo bu am solo te mooy li ñuy waxtaane tey mooy bàyyi julli tey ko ki nga xam ni dafa bàyyi julli du julli te julli nekk santaane borom bi subhanahu wa taala muy farata ci bépp jullit képp ku ko sàggane sàggane nga santaane sa borom bi la bind te jullil ko moo tax mu wàccee la ci kaw suuf mboolem ibaadaat yi julli moo ci gën a foor moo ci jiitu ginnaaw bi baatu seede yi jàllee muy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lu gëna a kaweef julli amul képp koo xam ni nag bàyyi ko bàyyi nga sa santaane boroom te mënatoo jëf lu yàlla gis ci mbaax bu fekkee loola lu baax la nu koy tudde julli amul kenn ku ko mën a gàddul moroomam kenn mënu ko gàddul kenn jëkkër mënu ko gàddul jabar jabar mënu ko gàddul jëkkër yaay mënu ko gàddul doom doom mënu ko gàddul yaay baay itam mënu gàddul doom doom it mënu koo gàddul baay sëriñ mënu koo gàddul taalibe taalibe mënu koo gàddul sëriñ xattaal anbiya wal mursalin yonent sax mënu ko gàddul kenn julli daal kenn ku nekk ni ngay wéete ci sampax boo génnee àdduna sa jëf di la wettali julli noonu la mel kenn mënu koo gàddul kenn amul kenn nag ko mu wàcc ku dul xanaa ki yàlla toggul jëf ki tàqali ko xelam loo feebar feebar ak lu feebar bi tar-tar julli wàccu la fileeg yaa ngi ànd ak sa xel kon julli nekk na lu foor nekk na lu màgg nekk na lu noo la fonk te ñu ëpp ci jaam ñi dañu koy sàggane am na ñoo xam ne julleeg ñàkk julli lañu yamale te képp ku koy sàggane yaa ngi sàggane loo xam ni ëllëg danga ko rëccu ndax musiba la lay jural kon jullitu du lu nuy sàggane julli ci jaam bi moo raw jamaa ci dund yow jullit bi jamaa li muy foor foor jullee ko gën a foor ni jamaa mel ci sa dund boo ko amoon tey am ca mu doon loo xam ni day na taxal sa dund ci ibaadaat yi julli noonu la mel mbaa mu raw ko sax nag mu ne képp koo xam ne nag bàyyi nga julli comme ni ko yonent bi alayhi salaatu waxe te tey ko na nga xam ni buum gi jokkale jaam bi ak boroomam maanaam buum gi la jokkaleeg sa boroom buum googee dagg na sa dara doxatul sa digganteek sa boroom laa tatruku salaata salaata almaktuba mutaammidan fa man tarakaha mutaammidan faqad baraat minhu zimma ki nga xam ni danay julli waaye waxuma ki nga xam ni dafa bàyyi julli ki nga xam ni dafa yeexe julli du ko julli ca waxtu ya nam ko santire rekk la koy defe saa yu ko santire la koy def kooku lay waxal nii waaye waxuma ki bàyyi julli de julleetul dagg ko déedéet bàkkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy yéexe julli wala bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy mooy di yeexe julli bokk na ca bakkaar bi nga xam ni boo ko tuubul ba faatu mu yóbbu la jahannam taaxiru salaa an awqaatiha kabiratun min kabairi dunub boo déggee ñu wax kabair mooy bàkkaar bu rëy bu yóbbu nit safara bu fekkee tuubu ko ba dee ñëw loolu la ñuy wax kabair yéexa julli nag da caa bokk waaw yéexa julli da caa bokk moo tax yàlla boroom bi subhaanahu di wa taala di wax ñi nga xam ni ñoo fi jiitu woon wuuteeg seeni yonent bàyyi julli ñooñee la yàlla di rëbb ngir topp gu ñu toppoon seeni bànneex bàyyi seeni julli ya bàyyi seen waxtu ya yàlla ni fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabau sahawaati fa sawfa yalqawna gayya ca suratu maryam aya 59 borom bi nee ñoom day wuute nañu wuute gu tar ginnaaw seen yonent ya ñu sànk waxtuy julli ya sànk seen julli ya julleetuñu topp seeni bànneex yàlla ne dinaa leen sànni ca safara wa nga xam ni moom lañu xëy yi xur la ibnu mas'ud nee xur la wu nekk ca safara ca jahannama xóot lool te tàng lekk gu wexat dafa am ak naan gu tàng jër muy xëy yàlla ne ñi nga xam ne dañoo sànk julli ngir topp seeni bànneex fa sawfa yalqawna ghayya kon gis nga yéex a julli sàggane julli heure bu la neexee julli yaa nga ca xew ya waxtu julli jot nga topp mbumbaay ma walla yaa nga ca làmbu ja waxtu julli jot sa yoon nekku ca wala yaa nga ca football ba ca terrain ba wala ca stade ba waxtu julli jot sa yoon nekku ca yaa nga topp pomar rekk wala ca xew wa wala ca politique ba nekk ca campagne ba ca meeting ya fàtte julli wala boog sa yoon nekku ci yow daal da ngay nekk ca la la neex rekk topp sa bakkan rekk topp sa bànneex rekk topp sa mbumbaay rekk ba a jeex ba nga xam ne loolu moom topp nga ko ba ñedd ko ba mu jeex takk dara desatu ca nga ne nekk yaaye dangay fay bor ku la ko lebal ak koo ko feqal bor bi koo ko seqal damay fay sama bori julli yi wala yax sa liggéeyukaay nga nekk nga nekk ca usine ba wala ca bureau ba waxtu julli jot nga topp sa liggéey ba waxtu julli ya paase nga ñëw ci kër gi naan damay fay kooko séqal bor ba wala yow mi ci marché bi di jaay ak foo mën a ne bu waxtu julli jotee lépp loo jàppoon bàyyi ko ca bureau ba ca usine ba ca atelier ba yaa ngi toog ci sa machine di ñëw wala di liggéey waxtu julli jot nga ne xaaral ma yeggale lii ba waxtu wa paase loolu yépp ci la bokk mooy ñi nga xam ni ëllëg yàlla ne dinaa leen dugal safara bu ñu wax xëy muy xur wu nekk ca safara ca jahannama xóot lool kon nag julli du noo ko santire nga koy defe du waxtu wala neexe nga koy defe ndax inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquta julli dañu ko organiser wutal ko ay rakaa ay lim du na du ràkka yu la neex ngay julli suba dama sawar rek xaaral ma def ko ñeenti ràkka déedéet boo ko defee doo ci am dara tisbaar dama sonn xaaral ma wàññi ko def ko ñaar wala ñett boo ko defee doo ci am dara tàkkusaan noonu timis nga ne ah dama sawar xaaral ma def ko ñeent boo ko defee doo ci am dara gée nga ne damaa sonn xaaral ma wàññi ko def ko ñaar walla ñett boo ko defee doo ci am dara lu ñu organiser la waaye ca waxtu ya bu fekkee ngànt amul képp koo xam ni waxtu julli jot na amoon ngant lu sharia nangu ngànt loo xam ne sharia moo la ko may waxuma ngànt loo xam danga ko teg ci bakkande nekk ca la la neex ci sa liggéey wala ca mbumbaay ma ca politique ba ca stade ba ca lamb ja wala ca atelier ba wala ca marché ba nekk ca la la neex nekk ci say soxla nekk ci say activité waxtu julli jot sa yoon nekku ca nga dégg nodd gi tànqamlu waxtu julli jot sa yoon nekku ci ba waxtu ya paase nga ne da ngay fay kookii la ñuy waxal waxtu julli woo faat te tay ko boo ko julli woon mille fois boroom xam-xam yi ne nañu yàlla du la ko nangul tuub rek tuub rek mooy tax yàlla nangu ko kon nag yéex a julli daal bokk na ci liy dugal nit jahannama mbugal ko mbugal mu tar yal na nu ci yàlla musal gis nga fa waylun lil musallin fa waylun lil musallin allazina hum waylun xur la bu nekk ca safara wu xóot tàng jër te metti mbugal yàlla ne danaa fa dugal way julli ña nga xam ni julli num leen neexee lañ ko doon defee buñ ko sentiree lañ koy def buñ ko sentir duñ ko def du leen yàqal seen benn soxla mooy an salaatihim saahuun doo ko julli ca waxtu wa doo respecté rakkaa yi rukkoo yi doo ko respecté su jóot yi doo ko doo ko respecté yow daal noo ko santi rek nga koy def boo eggee ci war koo def sax dangay cakañ-cakañal rek mel ni ginaar guy cof ruko ay du mat su jot ya du mat naa ko def rek génn ca na ma wàcc loolu du julli de julli nekkul loo xam ni daf laa war rek nga ne na wàcc noo ko defee baax na déedéet dee ko julli ca waxtu ya te jamono bi ngay julli nanga jàpp ne yaa ngi deeyoog sa boroom mu doon bànneex ak yëg-yëg booy am ci sa digganteeg sa boroom aku keewlu mooy tax la julli di jëriñ mu ne ci yow yàlla def ko ci yow ndax inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar médicament la boo xam ni moom julli dafay defar sa jikko defar sa dund defar sa melo defal sa ruux defar sa bakkan ba nga xam ni da nga egg ci dimension boo xam ni da ngay teg sa tànk ci njub rusatee def lu bon rusate koo wax yàlla di ko dégg baa mu ciy teg bëtam yow yow dépassé nga nit ñi de déedéet comme lii duma ko wax ndax nit ñi dañ koy dégg duma ko def ndax nit ñi dañ koy gis déedéet yow yaa ngi sàmm sa digganteeg sa boroom am na loo xam ne rus nga koo def yàlla di ca teg bëtam te yàlla foo toll mi ngi jàkkaarlook yow am na loo xam ne rus nga koo wax di ko génne ci sa làmmiñ yàlla di ko dégg te loo wax lu mu suufe suufe ma ngi koy dégg foofa la la julli di yóbbu foofa la la julli di yóbbu waaw inna salaata tanha anil fahshahi wal munkar kon julli li muy def ci jaam bi mooy daf koy oriente jëme ko ci jikko yu rafet jëme ko ci ngërëmul yàlla jëme ko ci mu jubook boroomam waaye ci kaw nag nga def ko na nga xam ni noonu la ware matal say laab mu mat sëkk laabi biir ak ju biti waaye itam nga di julli ca na nga xame ni noonu la ko yàlla bëgg waaye di ko def ca waxtu ya soo ko defee daal di nga mucc ca waylun lil musallina lazina hum an salatihim sahun waaw pour woowee ca safara nga xam ni ñi daawul respecté julli ca na mu waree fa lañ leen di dugal yàlla mën na caa musal yonent ci alayhi salaatu wasalaam wax ni julli mooy tàqale jullit bi ak kéefër ak bokkaale yàlla ndax boo dul julli rek yaa ngay bokkaale yàlla la tax nga bàyyi julli loolee yàlla lay doon ci yow kon yaa ngay shirk yaa ngay bokkaale maanaam la tax julli woo loolee mooy sa yàlla jamono jooju kon yaa ngi koy bokkaale ku dul jullit yéefar nga moom moo lay tàqaleeg yéefar bi li tax ñuy wax ab jullit mooy kuy julli jullit mooy kuy julli mu mel ni waxtu wi dab nanu fii la ñuy taxaw rek bu ñu dellusiwaatee sof incha allahu taala di leen fàttali numéro téléphone ki nga xam ne ku ñu bëgg a topp ci programme siratu nabawiya international 100 pour cent rasul wooteel ci 77 283 13 64 wala nga wootee ci 77 531 00 04 seen mbokk seen xarit seen soppi imam Bathie Samb wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin نيل ما